ñetti fànn yi nga xam ne ci la njëkk bind tudd téere yamu ci bind mooy wetu tawxiid ak fiq ak tasawuf nu wéyal loolu ba tey e, ñetti fànn yi yëpp muy tawxiid fiq tasawuf boole na leen ci benn téere yaatal ko ca lool muy tazawudu subbaan mu dellu tënk téere boobu mu gën a gàtt mu tuddee ko tazawuru sixaar ba tey Sëriñ Tuubaa bind na jëme ci ay teggiin ak jikko yu rafet bataaxal bu Ahmad ibnu Muhammad alxaaji defoon doon ci laabiire moom la sëriñ bi waay tuddee ko naxjul xadaayil xaaj ba bind na ci wàllu naxwu bu dee ci tubaab moom la ñuy wax grammaire mi ngi ci bind téere bu téere bu tudd al ajrumiya moom la way tudde ko saadatu tullaab yii yëpp rek téere xam-xam la yoo xam ne boo demee ci diwaanu ulumi diniya dan diniya danga ko ca fekk benn téere rek la ñuy fi tudd boo xam ne nekku ca muy xoqal wakaawu ba tey ci mbindi sëriñ bi ci wàllu sarafu mooy soppaxndikuk baat yi ak ni ñuy nattee baat yi ci arab Eh, téere bu saraana ci benn téere boo xam ne mu ngi tudd nusaxatu sarif moom la ci sëriñ bi saraa ku ñu wax adiyaa ji ibnu abdullah moom moo ko way te moom eh, abdullah moom eh, ibnu abdullah moom dajaa tënk téereb al maydaani ba sëriñ Tuubaa dajale na ci wàllu xadis dajale na ñeen fukki xadis yu wér tuddee ko nafa isu durar bu dee njàngale mi jëm ci tontu ay laaj ak ay laabire wala ay ndénkaan yooyu yu bari la bu dee ci wàllu tontu laaj am na ci yoo xam ne ay aaya alxuraan lañu ko laaj mu de ci tontu am ci yoo xam ay xadiis la cay eh, tontu di ko eh, firim piri mu yaatu te leer lool am na yoo xam ne da ci tontu laaj yu tawhiid am ci yoo xam laaj yu fiqh la am ci yoo xam ne laaj yu tasawuf la bari na sax masala ay laaj yoo cay fekk yoo xam ne e, bokku tëkk maanaam xam-xam yu gën a yaatu danga ko ca fekk ci laaj muy tontu yoo xam ne doo ko gis sax ci téere xam-xam yi nga xam ne moom lañu miin te baaxu ko jàng ci wàllu tasawuf bari na ca lool laaj yoo xam ne day aju ci diggante taalibe ak sëriñam loolu indi na ca lu yaatu yaatu ci tontu ay laaj bu dee yu mel nii nag du téere xam-xam wala du mbind yoo xam ne sëriñ bi ko dajale waaye mag ñi nekkoon ak moom doon nañ dajale xeetu bataaxal yooyu ak ay waxtaanam ak ay laabiireem moom cee tudd ku ne maam sëriñ Sill ak ku mel ne sëriñ Maxtaar Bintaloo ginnaaw loolu it sëriñ Abdou Lahad moom Cheikhul Xadim yan yàlla yokk ay leeram moom it def na ci liggéey bu rëy ba bataaxal yu bari yu sëriñ bi bindoon mu dajale leen mooy téere bu boobu ñuy wax majmua moom la waa rabitatul xadimiya eh, muul te liggéeyaat mu liggéey bañ ci liggéey nag mooy toftale boole mboolem yi nga xam ne ñoo bokk lu ñuy wax maanaam thème yi ñu sësale leen moom lañu ñu tuddee al majmuatu suxra dafa am nag beneen majmuwa ñu waxal majmuwatul kubra boo xam ne sëriñ Mourou Diagne mu daaray kaamil moo ko dajale moom it ay ndénkaan ak tontu ay laaj ak ay laabire moo ci nekk ba tey ku ñuy wax sëñ Abdul Xaadir Bousso dajale na lu mat ak benn ci laaj yu sëriñ bi doon tontu mu tuddee min fatawa a Cheikh tiirale bu am solo lool làmboo njariñ yu bare bare ci wàllu ndénkaan yi ba tey euh, daayira rawdu rayaaxiin bi féete wàllu xam-xam ci yoonu murit dajale nañu téere boo xam ne euh, lu mat téeméer ak fanweeri ndénkaan ma nga ca mu doon yu am solo lool mu tuddee ko min wasaaya xadim euh, loolu day wane rek ne ku tedd ki jàngale na ci anam gu nekk li mat a bind lépp bind na ko bàyyi fi am na ci ndénkaan yoo xam ne ay bayit lay doon yu bari am ci yoo xam ne it du doon ay bayit waaye wasar lay doon bu dee bayit yi mën nañ cee lu mel ne ndénkaanu Mahmoud nga xam ne téeméeri way war naa tegal mu di ñun laajoon ko laajub tasawuf mu woy way yu baree bari di ca tontu ak di ca leeral li ci boroom xam-xam yi indi. bari na loolu looy gis mbind moo xam ne dañ koy tuddee tontub diw lu mel ne jawaabu Abdurahman tontub Abdurahman loolu benn laaj lay doon boo xam ne ñu ko laajee sëriñ bi ci taalif taalif yu yaatoo yaatu ba mbokki taalib ak mbokki jullit yëpp mën koo jariñoo am na téere bu tudd sirkul jawahir fi axbaari sarair moom sëriñ Tuuba ay xadis la ci indi ak lenn ci waxi saxaaba yi ak waxi waroom xam-xam yi ay xikam yu yéeme yéeme yoo xam ne dajale na ko ci eh, téere boobu nga xam ne téere boobu ñaari bunt la bunt bu njëkk bi daa jëm ci wax mbiri àdduna bi ci des jëm ci wax mbiri alaaxira eh, mu làmboo njàngale yu yaatoo yaatu ak njariñ yu yaatoo yaatu moom eh, Sirkul Jawaahir ba ci xeetu njàngaleem daana toog di tombal taalibe yi ci suuf di leen xamal ay xam-xam yu xóot lool ci njàngale mu leer lool te gàtt mel na ñenn ñi nga xam ne taxuñu taxu leen woon a fer ijji lool eh, daana leen njàngal ci eh, kem seen tolluwaayu xel lu mel ne tombal leen tomb yoo xam ne da cay wax wax ju ju xóot joo xam ne mën ngaa sori lool ci téere yi te doo ca yegg waaye mu dee leen ko teqantal ci ay wolof mu leer ci ñoom lool misaal bi ñu ci joxe rek mooy mos naa tomb ñetti tomb nga wax ne tomb bi ci digg bi mooy sa boroom bi ci des mooy boo xamee ne kenn mënu koo xam bi topp mooy kenn gënatula koo xam loolu ñett tomb yëpp leen la ci jàngal mooy saa boo xamee ne yàlla kenn mënu koo xam rek yow kenn gënatula koo xam loolu di bind tawhid boo xam ne nit dana sori lool ci njàng te du ca yegg kon mbokk yi loolu moo nekk ci taalifi sëriñ bi lu aju ci ta ay taalifam nag jëm ci xam-xam lim ci waxal boppam te soññu ci taalibe yi bu ñu dellusee dikk ci incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu